chers amis internautes bu Lune TV ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare euh, ba léegi nii ñoo ngi ànd ak euh, géopolitique bi ci lañ nekk ba léegi nii di seeti candidat yi waaye Philippe jotaguñ candidat yi euh, ñi leen gën a jege la ñuy jot fas yéene ànd ak ñoom waxtaan ndax xam nañ ne yàggatul dara ñu jëm ci élection gox goxaan yi mooy ñu koy élection locale Euh, tey nag ñëw fi ci diwaanu ñàgg euh, seet si fi ñoo xam ne ñoo ngi ci géopolitique bi te xëccoo meeru ñàgg ñàkk rob euh, ñu jot si kenn koo xam ne ki gën a jege ki nga xam ne day xëcc ci la bokk dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ba ko bu Lim TV ñu fas na dugg ci waxtaan bi ku baax ñu ngi lay nuyu bu baax baax di la bàyyi nga nuyu waa Lim TV. ñu ngi lay sant salaamaaleykum mm-hmm. di jiital nuyu yéen waa Lim TV yi am mbégte ci teewaay bi ngeen fi def tey mm-hmm. ci biir kuréel gi nga xam ne moom la ñu tampoo fii ci. Euh, euh, euh, sañ-sañu ak mën-mënu kii di suñu futur maire Abdoul Aziz Sall. Mm. bokk ci mouvement bi nga xam ne gox bi yëpp xam nañ ni dañ ko tuddee mouvement ànd defar suñu gox. man nag man mii nga gis Ibrahima Akrachi bi conseil municipal la mm. bu ma yóbboon nii 2014 ba léegi. Mm. man maay président commission santé. maanaam lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci gox bi sama loxo la ne. bu ma yeboo sa sama loxo la waroon a ne. ngir hmm. dinaa après dinaa leen wax li tax ma lii sama loxo la waroon ne. vraiment am naa mbégte hmm. eh, sant ñi ma bokkal jotaay hmm. ah, bi muy samay mbokk eh, eh, mouvement ah, toujours rek ci kaddu ak sañ-sañu kii di jëm gi nga xam ne ñun ci gannaawam lañu nekk muy notre futur maire Abdoul Aziz Sall. xëy na it am na koo xam bu fi teewoon nuyoo googu damay wóor ne ni sax ni moom laa koy jagleel. muy euh, secrétaire général mouvement bi di soxna Fatou Ndoye Sall. Mm-hmm. Euh, soxna su am jàmbaar. Mm-hmm. Ah, jàmbaar te sax yaakaar naa ni xëy na mos ngeen dégg ay kii ci moom. Mm-hmm. ànd ak ci ay naw leen ay moromam yu bari. nekk ci mouvement bi surtout jigéen ñi parce que jigéen ñi am nañ doole lool euh, ci. ci affaire yi. ah ba bañ na ko ba ci lu bari. kuréelu jeunes yi ñu yokk suñu biir te yor panel lépp ak. activité yi doon pour animer mouvement bi ñoom ñooy faire de lancé ñoom lañ ko seqal vraiment mbégte la teew ci sa kanam lii toog ci samay mbokk mun weccoog yow ay xalaat ci lépp loo xam ni bëgg nga ko wala mën nga nu ko laaj macha allah ci nuyoo yu matala yooyu noonu xam naa balaa ñuy dugg rek ci question yi maanaam comme ni nga ko waxee la déggee dafa mel 2014 ba léegi yaa ngi ci maire bi kon ndax conseil municipal nga mel ne jegoon nga tey ji maire sotaan bi ndax yaa ngi foofu ba léegi wala ngaa kitte foofu noonu léegi ñëw ñëw rejoindre eh, waa mouvement eh,

biñ koy samp ci gox bi yaakaaroon naa ni fukki nit ak ci nekkoon. boobu nag APR bu Macky Sall. APR bu Macky Sall bi moom laay wax nii. Euh, ñi ngi tàmbalee fukki nit. Mm-hmm. ci fukki nit ñooy jigéen ñee ci ëppoon. Mm-hmm. ku mel ni Aram Diop. Mm-hmm. Ndeye Sylla. ñoom Bijou ñeneen ak ñeneen. lëkkaloog yeneen xale yu góor ba bu ma yeboon nii kenn yaakaarul woon ni dinañ yegg si fii. biñ demee ba ci loolu ak romb nañ ay combat yu bari am nañ ci ay ndamit. biñ demee nag ba 2014. moo doon doon loo xam ni projet la boo xam dah dañu bugg bi hmm. ni nanti saya ni ñu koy tëralee biñ toogee waxtaan amoon na ay yonente sax day suñu biir ngir ñii nangu woon nañu li ñu sasoon ñeneen ñu nangu ko woon moo doon lan hmm. euh, ñu tànn ku ni euh, euh, papis hmm. ngir xamuñ ko woon ni ñu koon bu baax ni rek xëy na waaju war a mun xam luy ñu ni teel koo tànn comme na ko Macky Sall waxe woon pour boo ni dem ci combat wut leen koo xam ne mun na leen dooleel ngir ngeen gagné mm-hmm. ñu nag looloo taxoon ñu jiital ko mm-hmm. ba yàlla dogal ñu def suñu maire mm-hmm. bi ñu ko defee suñu maire yi kon ñu nag moom depuis 2014 la sa sosoo euh, commune bi euh, nekk moom ci ay activité ak ci ay jëfin lu baax ak lu bon euh, ci biir waxtaan bi nag yaakaar naa ni gënee xóot rek ñun tamit ay leeral dinañ ci gën macha allah ndax ba léegi nii foofu la ñuy des ndax mel na da ngaa quitté foofu noonu n'est-ce pas actuellement bu ñëboon nii euh, bi suñu futur maire Abdou Aziz Sall mhm. toogee ba am xalaatu ci mhm. kaw ay jàppande ay jeunes ñu ne ñàkku rab mhm. ay jeunes ñu ne ñàkk booloo ni dañ koy yëkkati fa mu ne woon maanaam sas ko ngir mu ñëw doon candidat ci mouvement boo xam ne bu ko tuddee mouvement ànd defar suñu gox ah ñu hmm. hmm. eh, lah hmm. eh, eh, ni bu boobaa li ñuy mun def dañuy seet rek tontur wuyu na borom dara laxtu du wuyu na borom bi jógee ci loolu nag ñun boo seetloo ci commune bi 56 conseillers lañu ci biir 56 conseillers yooyu d'ailleurs sax soxna futur maire ci adam diop bokk na fi man mi ci laa bokk am nañ ci quelques membres yoo xam ne ci yeneen parti lañu bokkoon mais finalement dañu mujj ñoom ñëpp bokk ci mouvement APR ba mu des kenn docteur Amadou bon buñu yeboon ni bi ñu tàmbalee mbir moomu ñu ni dañuy yeesal ci yeesal boobu dañ ni balaa ñu koy def dañuy seet nam ñu gënee bi ñu xoolee ni ci lu ni fànn kenn du ko jeex gis nañ ni 2014 ba fi ñu toll hmm. la ñu sasoo woon ak la ñu tegoon ki nga xam ne moom la ñu amoon yaakaar ci defar gox bi gisuñu ci leen ñu ni nag ah jot na bon pour ñu ñu jéem ko jëlal suñu bopp hmm. biñ jógee ci loolu waxtaan nañ même yeneen conseil yi fi teewul yi ñoom ñëpp ñu ne maag ñoom toogandoo nañ ba amon décision ñu jàpp ba am lu ñu nasoon waaye amon naa mbettel lool lool lool ñu demee ba di motal loolu ma gis ni ci biir cinquante six yooyu cinquante trois yëpp ànd nañoo la maire bi wax ak la mu leen gëmloo maanaam bu mu yewoon ni ñett ñi ci des maanaam mooy soxna monsieur le maire madame Sall Aram Ndoye muy man mi ak ki nga xam ne moom it yàggoon na di bañ yenn jëfin yi ci biir maire bi muy docteur Amadou Wade bu ma yóbboon ni la rek 53 conseillers yi ci des yëpp ñoom ña nga des foofu mais man dama tànn xam ni jub daal yaakaar naa ni dara gënu ko ragal yàlla dara gënu ko hmm. te ku ragal yàlla am na noo xam ne buñ la ko sasee rek moom nga war a mais xam naa doguma la waaye su ma déggee sa wax dafa mel ni kon maire dafa am dictature wala boo xam ne dafay dafay am lu muy leen ñee buñu leen déggee tey dana mel leen mooy la ma njëkk wax bii tàmbali ñun cinquante cinq yi maanaam du ma ci boole docteur Amadou mais ñun cinquante cinq yi ñun ñëpp ne woon nañu bés tëkkoo nañ ko ñun ñëpp ñun ñëpp tëkkoo nañ ko ñun cinquante cinq yëpp tëkkoo woon nañ ko nee nañ kii bii par ren bu élection ñëwee dinañ fi jëlee dinañ fi dindi parce que la ñu fasoo moom respecté wu fi la parce que maire la boo xam ni fii dafa am ay compétence transférées yoo xam ne dañ ko aaki moom waroon ko doxal neuf domaine de compétence mais ci biir neuf domaine de compétence yooyu buñ la nee wér moo naa danaa ci ñëw ndax le ko wax ne maanaam moom am yoo xam ne sax fii fii boo demee soka bekk dañuy ay la ñuy ko jàng voilà mu ngoog biñ demee ba ci biir loolu ñu gis ñu biir neuf compétence transférées yëpp bu ma yóbboo si nii benn doxu ci nii benn rek moo ci dox muy domanial maanaam domanial bi nga xam ne mbiru jaay ak leble suuf ak tàmb suuf ci loolu la liggéey ñu def ko ba juróom-ñaari at maanaam bu ñu yóbboon ni juróom-benn at ñu dolli ñu beneen muy juróom-ñaari ba ñu ngi dugg juróom-ñetteel ah ma ne lii euh, euh, euh, ku ragal yàlla waroo bokk ci yu mel nii bu ma yóbboon ni mafia la woon boo xam ni 2014 mm. ba 2021 bi ñu ngi woon ci loolu mu nekkoon délégation spéciale sax gën na nii ñu doxalee 2014 ba léegi. yéen maire bi dafa doonoon koo xam ni gouvernance bi mu def ñett ñeenti nitam la wut. ñeenti nitam la wut. même gis naa ni ci ñi ma wutoon sax am na ñu ci doon jéem a nii dañuy def nekk ay candidat am na ñu ci mujj dellu ginnaaw demaat ci moom am na ka ca des moom nee na day jéngu te pourtant ñoom ñëpp ñoo bokk àtte man nag ma ni lu jub lu dëng du ma ci bokk léegi damay natt ci ñoo ñoo ñëpp seet ki ci gën jub ki ci ëpp yërmande ki ci dàq liggéey ki ci dàq muñ ki ci gën ragal yàlla ma mun ànd ak moom bi ma gëstoo sama gëstu sorewul dama gertu rek daj ak Abdoulaye Sall nga xam ni moom vraiment euh, euh, euh, moom laay mun àndal macha allah ba léegi ñoo ngi ànd ak Ibrahima euh, defe naa euh, kon xam naa ne foofu la ñuy taxawal ba léegi nii mm-hmm. tey jii nii yow jàppoo ne maire bi nga xam ne maire sortant bi euh, nga jàpp ne bilan def fi bilan boo xam ne war na ko mën a falaat wala jàpp ne ngeen fa def ne ndax am daal nit ñi leen leen par rapport ak bilan nit ñi nañ ko jàppee woon yaakaar naa ni ñëpp xam nañu demeewul noonu mm-hmm. parce que même candidature bi mu aakimoo nii mm-hmm. bu mu neexoon euh, ñeneen ku ci des keneen ku mu neexoon it mu noon nga ko akimoo ni moom rek mm-hmm. c'est dafa am ñoo ay nafeq yoo xam ne dañu àndoona moom ngemb loolu mm-hmm. moo tax mu jàpp boppam ni moom mooy candidat benn bokk yaakaar mm-hmm. mais non Macky Sall gis ni ñun dañu noppi ba xuñu dara mu approuvé li ñu tuñu noppi mais bu ma yëngatu woon keneen yëngatu keneen yëngatu bu boobaa dañ koy loterie wala seet ki gën mais dañ ñun ñëpp maanaam xam nga lu toll ni cinquante trois cinquante six conseils 53 yëpp ni waa ji la. mais kon day mel ni loolu ñu si des ñëpp ay complices lañ pour. moom dañ leen non. wala wala muus da koy wooye muus dañ leen jënd. ah déedéet waay. si dañ leen jënd ñooy koo ci gis no maire topp maire ci kaw la. Mhm. mais mais mais suñu conviction lañ ko toppee ak liggéey bu mu liggéey bu mu liggéey. non déedéet lu ñu am la ñu toppee maire ndax li ñu am xam nga ñun ñii yaakaaroon ci Massamba yaakaaroon ci ma dem te yàgg tedd avant lii. xam nga ñun du ñu bokk ci yu mel noonu. Mhm. loolu sa bokk na ci li tax ñu ànd ak Abdou Aziz Sall mi nara de nek sunu mer sobe yalla inshallah mais mais mom choono la tek bopam ni mhm. parce que monone def bok sa bop rek ok ngi da don doylo yalla sante bu wer wer mais choono askan bi motax mu ni damay set ñu melni man mhm. ma ànd ak ñoom ñu a dindi li fi nekk. Mhm. te vraiment ku deful loolu da nga da nga ñeme yàlla. mais nag man nag euh, doguma la mais est ce que Abdou Aziz noonu nga wax tey ngeen xam ne mooy seen futur maire gëmoo leen ne tey jii nii mën nañaa dem ba ci yàgg mu soppeeku ndax euh, fii nii kandaay yu bëri ba ñuy soxla dañaa dem maanaam dañuy jege askan ñu dem ba ci yàgg. soppeeku loolu déedéet loolu. Mhm. gis nga bi ñuy tàmbalee bi ñuy sos APR nee naa la nit lañu. ok ñii ñii nii xam nga ñaata ñoo ci nekk APR fi mu ne nii ci ñi nga dégg yëpp ci commune ñeent ñoo ci APR ñeent ñoo xam ne ñoo nekk maa ngi foofu ñooy ñooy ñi nga xam ne vraiment mun nañu ni ñii ñooy waa APR ña nga gis ñuy mbel mbeli di di jaay yi tu nafiq ak karab rab ak ay transhumant lañ fa leen la ñu newoon bi ñuy toog fii ñu ñuy ñaawal ak ci ñëpp gis teewoon nañ mais léegi léegi léegi dafa mel ni ñoom ñoom dañu xam lu xew ñu ngi naan bennoo ñoom xam nañ ñu bennoo bi tëddee laaj la ndax xam nañ lu tax ñu transhumance yi dañaa gis transhumance fi mu ne ñoom ñooy gën a lekk ñu fi nekkoon mais mais xam nga ñun discipline moo ñu sonal discipline moo ñu sonal mais du ñu yàqal jamais waaw du ñu yàqal parce que ñun kenn taxul ñu ñu ñu ñuy dund kenn taxul ñu teer yàlla daf ko def ca be te ñu ko li jiitu ci ci ci lu ñeneen yi mm. bu ñu demee nag ba bu ab mbir mi demee noonu li mm. naa la kuy ànd ak ku ku kuy àndal wala kuy xaritoo ku ku ku ñeme yàlla yow di yow it ku ñeme yàlla ngay doon mais ñeme yàlla paasewul nga toog nga nekk ci ci nguur juróom-ñaari at mm. xool juróom-ñaari at tax ba ay junni accident am ci croisement ñàgg ba croisement ah mais déedéet bal na loolu na dogal yàlla lu fi lu faatu rek la moom ma wax la loolu bi fii bay fale bu la fi timis passé boo yorul sondel doo gis moo indi accident yi fi amoon yëpp juróom ñaari at yow balaa ngay dem naan da ngay mala ne nii doo defar tronçon bu ndaw bi ju sept ans di gën triste nag di gën yebaate moom dañ ko téye ko ni ko may nga yëpp xam nga lu dafa toog ba mu des ñaari weer xam nga benn weer ak genn mu dem ci ba pënd xool pënd xoolu Lac Rose bi yëpp wër ko ci dëkk bi léegi man bu ma neexoon porté ko plainte en tant que président commission santé parce que ñu seen asma daloon yëpp ña nga xawoon dallu yëpp rek ñoom ñëpp seen asma yokku na man clinique laa yor. li may daj damay recevoir ci ay ñu am problème respiratoire temps yi bu yàlla rek moo xam ne mu toll. du ko indi ñu xam nañ lii day dañ ko suñu liggéey suñu yà suñu xam-xam la. xam nañu poussière bi mu def baaxul ci wér gu yaram doomu aadama mais li ma gën metti am na ñu ko tànn ci loolu. mais est-ce que jàpp dañuy moom day liggéey ndax kuy liggéey foofu mu mel. non dama xam bëgg dara. abal gëm dara mooy indi yenn yi hmm. parce que yaakaar naa ni gox boo fa nekkee am fa njaboot am fa ay sët am fa ay xarit am fa waajur am fa lu nekk am na taxawaay boo xam ni boo ko defee rek sa dund dee moo koy gën hmm. jaay sa ngor ku ko def sa sa dund dee ko gën hmm. te papis yi ko topp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñii ñi ngi yaakaar benn di tuuti quinze xëy na ñëwagul xëy na moom la ñuy espérer ñii ñi ngi yaakaar ni tey ñu am tuuti ci dépend gannaaw suba ainsi ainsi mais gis nga ñi ko topp ni di mel meli mm. ëllëg bu ëllëgee ci ñun ñii la ñuy ñëwaat di tàllal loxo te bu soobee yàlla Aliou Sall dina nekk maire bi Tivaouane Peulh Niaga Tivaouane Peulh Niaga kenn mënu si dara daf ñu jaral mm. mm. sa waay mi ay li mu yor ne di ko dis bee nga yaakaar xaalis boppam non loolu ñëpp xam nañ ne xaalis Sénégal la moom xaalis boppam nga yow yaakaar dina ñàkk ba ngay jël ay ay milliards tout gis nga mille parcelles boo jaayee benn trois millions ñaata la xaalis bari trois milliards 1000 parcelles multipliées par 3 millions égale 3 milliards. Ça va 2014 bi 2021 jaay nañu ëpp 1000 parcelles. mais kii bu ku ko topp kii yëpp xaru bi yëpp day bañ ëllëg ñu toog bàcc ko mais dañ def naan ëllëg ñu toog dara duñ ko def dinañ muñ rek xam ne erreur la def. def ko diggante affaire jullit ak jullit waaye bu ngand ngand la rek ñu laaj ko ci mais bu ngeen ko porté plainte est-ce que dana mais ñun nga ñuy waa APR lañ waaw nekkee waa APR même gis nañ lu ko gën a def ay scandale te mujjul fenn quand même waaw mais du bopp du bopp parce que fii ñu dañuy jël suñu suñu mesure personnelle li naa la toog nañ jamono joo xam ne ñoo ñoo ñëpp kenn amu ci woon kàddu goo teg ñun bi ñuy tàmbali APR tidol tidol sulu kali dale pune sulu mel abdul aziz sal yun li dan eh, eh, eh, activité yi dan ali meyer mom moy do jappal te bobu yeneng ci ci bo yi ni ngi soufat affaire keureup salam la ñu tok de mi ngi ni musul don police mais salam la ñu tok ba 4h du matin même bi ñi def liste ay liste pi ñama ñam yépp bi salam la ko te mom dara newul ci xalam lu dul lu ñu soxal rek mu yëkati jox ni bu ma yobone bu ñu gagné ci lu bari euh, euh, euh, loxo moo ci ne. maanaam comme maire sortant bi toog li mu toog moom daanaka loxo boobu dugg na ci lu bari bari. lu bari bari bari non maire sortant dafa jënd rek loxo duggul ci dara loxo ci ger la nekk ger ger yi mu ger ak ñi nangu ger gi yëpp sa bàkkaar bi moo ñuy am na saar boo xam ak yow miy ger a naa ni gox bi yëpp te bi gën a nekk nag mooy No, man mang sa tu sungi sa ni bot nep ti mu ma dapat tunggu. Jadi mm. am di ni cai ni non. Jadi am full. Jadi am fit. Ni jaga ni pane. Gen nom liap mu nona yang sepanjang tak cion ni pas ni tak nanya yang cion ni. Jadi gundel pecah. Jadi top mesti Cepat tapot. Bisa depresi ni te. Aktiviti. Animasi. Lunen. mais bu leen neexoon ñu wut lu yomb comme ni ko ñëwee wutee. ok topp Massamba kalang kalang kalang bu bu journée bi jeex ñu jox la 3000 wala 2500. Mhm. mais dañu tegg loolu ngir suñu objectif ci biir projet bi monsieur le maire mooy. defar gox bi defar toog toog commune bi ñàkk ñàkk ko dara foofu sax laa bëgg ñëw ndax euh, gis ngeen ne comme maire sortant bi toog na fi sept ans def fi dara est ce que tey jii Abdou Aziz Sall teg na programme boo xam ne tey jii bu toogoon bu ko doxalee gis nga ne euh, gox bi yow dinañ gis seen bopp ci ci neuf domaines de compétence yëpp dafa yomb neuf domaines de compétence yëpp la ñu aati moom xëy na juróom-ñaar lañ ci jiital mais neuf yëpp la ñu aati moom mm. ñoom ñuy aati mooy nag li ci jiitu moom ñëpp xam nañ ko wér gu yaram njàng mi ak suqali dund askan wi yaakaar naa dara dara gënu ko mm. waaw ci leneen nag yi ci topp yëpp dañ ko def ci boole ci programme boo xam ni bu soobee yàlla bu yàlla tegee suñu loxo lii ñuy yóotu dinañ ko ànd dafa doo ko ak seen yëpp Aziz wootewul ni ki añu jàppale ko de dafa ni ñu ànd ak moom dafa suñu gox def ëppale wuñ ci dara de moom mi ëppale wuñ de da mooy woo part bi ñu ci am ñun part boobu lañ ci am ba xam ni mouvement bi mouvement indépendant la boo xam ni amul kii mooy ma sàmm wala kii mooy ma demba wala léeg-léeg comme na ko wàllu bële nekkee bennoo bi gis nañ dafa xaw ay surga ñoo fa ne ay tàmbiyumaan ay loolu góor ñoo xam ne dañuy ay ponklu jëm jëm ay magum jëm yor ay sët yor ay sataat sol ay t-shirt ak ak t-shirt ak photo monsieur le maire xaw ma la yow di nga di nga nekk kilifa bu rëy di sol t-shirt parti bu wane li mais est-ce que néew loolu loolu loolu loolu fula la mais nit ku ne am nga droit ki ngay soutenir nga sol t-shirt am mais loolu du fula loolu du fula loolu du fulla mais mais Moussa loolu dafa xaw a bokk loolu dafa xaw a indi sax leneen buñ soree buñ ci sorewoon rek nga xam ne ñoom ñëpp dañuy lëpp seen seen t-shirt ma waxee ñoom da ngaa gis ne affaire ñoo doon toog ñuy maire bii pas élection yi di ñëw dañ koy tudd dañuy tudd ndigal dañuy raq ndigal maag ñoom ñëpp ko doon waxandoo mais man ma toogee gis ñu loo ci kon benn benn ba démb ba démb benn ci mujj boo xam ne moom du ma tudd tur sax waaye bu démb bi yéem nañu lool maag monsieur le maire ak soxnaam soxna kay lu bette ma xam ne bon askan bi Tivaouane Peulh ñaar bi rab da jàpp na xaalis fa jaar non askan Tivaouane Peulh ñàkku rab bën na ba kër Marème Mbengue déeli géeg ñaagu fël vraiment am na ci doomu aadama yoo xam ne ah nañuy doxalee rafetul mm-hmm. ñu dañu ni nanu ànd defar suñu gox gox bi maanaam mooy li ma la lii ma lépp Tivaouane Peulh ñàkkurab ñàgg ñàgg Peulh ba kër Marème Mbengue euh, euh, liggéey mais ni wuñu bokk sa bopp bokk sa bopp bu ñu ko fi defoon du sotti ànd ak monsieur le maire mu indi leen situation boo xam nii la ko gisee wala dañoo mu tegee ko ndële ngeen ànd ak moom loolu yëfu naafeq la nit ki da ragal yàlla da ànd ak ngor mm-hmm. dignité dignité amul njëkk diite amul njëg ngor amul prix amul prix ku ku dem ba jaay sa bor sa dund dee moo ko gën li ma la wax ni du daj hmm. tubaar kàlla tubaar kàlla macha allah mbokk yi internet bu lin tv ba léegi ñoo ngi ànd ak ibrahima akrasi wax dëgg yàlla moom nag xam naa ne euh, moom moom moom invité naa ku nekk waaye nag tey maa ngi soogam invité waaw ah, bu ko defee nag xam naa ne dañuy dugal ci beneen ponk ba léegi ndax euh, gis ngeen ne maanaam maire yi ñu sëpp mooy ñu sëpp laaj naa leen ko waaye est-ce que Abdou Aziz Sall euh, jàpp nga ne war na am ay partenaire wala ay collaborateur ndax gis nañ ne maanaam maire yi sëpp ci ay ci ci ay juuti wala ci ay patane lañ taxaw pour a defar seen gox te loolu ñëpp xam nañ nga bëgg-bëgg est-ce que ay xam ne ëllëg bu toogee mën nañ koo jàppale ci liggéey bi ñun dañ ko fekk mu toog yor service am yor liggéeyam. am na muy jàppale sax ci liggéeyam parce que dafa yor ay personnel ci société yooyu mu yor. maanaam yor employé quoi. waaw ay nit yi am gis-gis comme ñi ci des. Mm. doon ay kilifa doon ay investisseur ñoo toog gis ni commune bi ñu ngi koy saax saaxee. ñoom it ñu xool seen profil xool nañ profil bu nekk ci gox bi mais ñoom nee nañ Abdou Aziz ñu gis. Mm. ñoo dem ba ci moom. ñu ko sóobul ñun ñu ja programme boo tëral ñun ñu ñu wàccee ko ci loolu la ñu nee nii te gëm nañ ko ngir balaa avant ñii sax am na programme yoo xam ne volontaire social mi ngi ko doon def ñoo ñoo ci doon jàpp boo duggee ci gox goxaa yi di nga ko gis te boobu xamul sax ndax dina bokk ci mouvement ànd récolte suñu gox mm-hmm. te musul def politique tey jii moom moom moom Abdou Aziz Sall lu mu lu mu wàññi ci Lac Rose ndax ñëpp xam nañ ne Lac Rose ville touristique la euh, tubaab yi kuréel dafay ñëw tey jii te foofu am na ressources yu fa mën a génn yoo xam ne gox point bi jiitu ci ci mooy dindi mafia ba hmm. ah dafa am mafia si parce que Lac dafa yaak dafa am doomu yoo xam dañ yaakaar ñoom ñoo ko moom ñoom kese ñoo ko moom Lac li fi li fi nekk bu ñu la ko xeex ak waa dëkk bi yëpp comme lan comme lan lat bi ñu ngi exploité xorom xorom bi dafa laaj am na réglementation boo xam ni lu mu néew néew néew moom lañ ko war doxalee ci lat bi mm-hmm. mais réglementation boobu la muy jur benn groupe bu nit ñoo ñoo ko aatimo te du woon pour loolu loolu pour loolu pour lan la woon jël ko di investir ci dëkk bi la di investir ci gox goxaat yi la mm-hmm. mais amul benn investissement boo xam ne ci ci ressource lat lat bi la la la la jóge la fay jóge yëpp ci ay poche te poche nit ñooñu nit ñooñu dañuy def ñeme yàlla ak bëgg riba paasewul paasewul la ñuy def dañ koy wax muus ni naa la muus da koy wooyee muus am na doomu aadama yoo xam ne seen dund pi euh, dee moo ko gën parce que amul ne askan bi njëriñ amul ne askan bi te nit dama yaakaar boo demee ba am ay sët am ay doom ci gox am na gàcce yoo xam ne da nga ko war a moytu am na ñoo xam ne dañuy wocc wocc wocc benn bool fees ñu sukkaat ni ko tayyi bi rek man non mec non Sénégal mais ndax gis nañu tey fii nii euh, sept souffrance ñoo ñëpp di souffrance yëpp bu maire jotaatee maire ci boppam day ñëw wàcc ci ñoom comme ni leen jafewul wàccaat seen kër yi di leen jox saako ceeb ak genre di leen jënd bu élection jotee ñu voté laa ko te loolu gis nañ ko Sénégal fu mu gën a méttee foofu ki moo fay gëñaat quand même boo amoon tey rek conseil suñu yaay ak suñu papa yi ndax gis nañ suñu yaay comprendre ci lu bari boo ma doon conseil lan nga leen wax ndax jeunes yi ne nii moom yeewu nañ ko conseil bi moom du sori. ñëpp xam nañ ni am na loo xam ne bu feeñoon sax lii yëpp lu ci am. maire bu liggéeyoon ba def bilan bu tegaloon askan wi bilan rek nit yi dinañ xam ndax war nañ jël kopparam wala war nañ jël kopparam. koppar yi muy distribué na ko nit yi jël de parce que moomu ko. du la mu moom. Hmm. xaalis askan wi la xëy na niñ koy joxe moo équitablewul parce que ay ay yenn nit lay jël di leen jox mais bu doon dañ ko investir ci loo xam ne commune bi lay ñoo ñu wax moom li mu waxoon li mu wax ne nee na du sonn ci élection boo seetloo effectivement loolu la def moom toog na sept ans bi élection yi de ces deux mois xaw trois mois ci la commencé def activité te nam ko waxee woon noonu la ko tàmbali mais waaye stratégie boobu mu yoon yor benn stratégie boobu rek mu yor te mu koy jëfandikoo ren du du jàll la mu waxoon mooy mm-hmm. gox bi ay ginaar fi nekk ay pigeon ay ay picc ramatu ay lu ne la wax waaw nee na ay naat sax a ngi fi waaw koo xam ne am na kii beneen euh, ginaar boobu nu mu tuddati ana aram baramaan kan baramaan xam mm-hmm. baramaan mm-hmm. baramaan nee na gox bi ay baramaan la baramaan man man baramaan kii kii kii kii yabaate na quoi mais passé na loolu mm-hmm. te mi koy def mais est ce que nit ñi itam maanaam lu ñu leen di wax noonu ndax olof ah nit ñaa ngi jël ah. nit ñaa ngi jël nag xam naa ni am na ñoo xam ne dinañ jël xëy na nooy dina am ñoo jël tamit bu bés bu jotee ñu ñu rëq diggam li ma la wax nii mais tey ñaari groupe ñoo ñoo daal patus dafa am ñu complexe tey ci moom ñoo xam ne du question wut dara ci moom mais lu mu wax ñu ne parce que seen personnalité seen bopp la ñu amul mais am na ñoo xam ne ay chasseurs de prime la ñu maanaam lu ñu am ñun nag bokk ñu ci ñaar yooyu yëpp ñun fi mu dina man du ñu tooñ kenn du ñu xeex ak kenn du ñu saa kenn mais dëgg dinañ ko wax dëgg nag kaani la ñëpp xam nañ ko bu mu la ko xëppoon léegi tey du doo fi jël noonu la tey duñ ko bañ wax ñun dañu ragal yàlla te ñu naa la jeunes yi ñu àndal jigéen ñu àndal fekk ya ñu yoon ñun fit yooyu la ñuy jël di ko di ko mm-hmm. ragal ñu kenn parce que ñoom ñooñu ko ñoom ñooñu ko sax Mm-hmm. du ñu taay du ñu ragal du ñu daw du ñu dellu ginnaaw. Mm-hmm. mais mais mais est-ce que jàpp nga ne Abdou Aziz Sall tey jii nii euh, élection yi dana yomb ci moom ndax ku muy xëccal ci mouvance président bi la bokk te moom tey jii nii ci ci ndax gis nañu Sénégal fii nii ñu si ëpp bu ñu bokkee ci mouvance président di di xëccoo dara euh, day yàgg rek waaye ñoom ñooy gën est-ce que jàpp nga ne tey jii war naa mën a yomb ci moom. dina yomb kay. da jàpp ne ko non la waay léegi la non élection yi di mm-hmm. naa la jox rendez-vous si ngoon fii. kon yow daal laa mel ni. non non non ko sax non ñun dañuy formalité nii rek. ok ak waa yi di génnee nii Abdoulaye Wade lu mu fi def. Mhm. lu mu fi def avant ñun ñuy jël nguur gi. ci moom lu mu fi def la mu fa dépensé kenn daf ko dépensé. maire bi di mulmul nii maire bi bi ñuy samp ñun Macky Sall fii ci gox bi moom PDS la newoon. na mhm. mu doon doxalee ci jamono yooyu sax mu gënoon metti xam nga la yoroon maal maal. Mhm. wut ñaar suba yu koy yenul maag fu mu dem ñu wàccee maag mu joxe mais dañu rëq ndigam lu loolu mu def moo ëpp lii muy def nii bon bii yomb na rëq ndig parce li muy def jubul lu jub lu lu dëng du yàgg lu dëng yàgg du ci ànd yàgg mu na la bàyyi nga yaakaar ni loolu la mais yàgg na la dal hmm. tubarkalla tubarkalla macha allah xam naa li ñuy tërloon ci waxtu bi nag daanaka léegi tey mu jeex bu ko defee xam naa ne dañ lay bàyyi nga nga nga nga nga tàggatoo ak mbokk internet yi ba pare gërëm ak ñi nga sant ba pare jox rendez-vous gars yi euh, le le 23 janvier nga ak bu dee conseil boo jox jeunesse bi ak parents yi yooyu yëpp ak boo jox lan la. Euh, vraiment euh, may def delluwaat rek leen sant yéen waa Lune TV. Mm-hmm. Ah, sant jeunesse bii ñu àndal. Mm-hmm. mouvement jigéen yi ñu àndal. Mm-hmm. Ah, cër googu yëpp biñ ko euh, ñoddee ci loxo ki nga xam ne mooy euh, Abdoul Aziz Sall futur maire commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàgg ko rab euh, dañuy def rek lu dul di bàyyi xel ci lépp loo xam ni nasoon nañ ko suñu kàddu daal yaakaar nañu gëm nañ ni bëgguñu mu naxasaay waaw ñun daal dinañu wàccoo ak askan bi bu soobee yàlla mm-hmm. lañu ñu waral ak ak askan bi dinañ ko def du ma ni lu ñu am jël mais dinañu jël commune bi bu soobee yàlla te kenn mënuñu ko tere jël lenn rek laay ñaan lenn euh, jeunesse bi jeunesse bi surtout man ma mag ñi sax parce que mag ñi bon mag ñi dañuy doyloo yàlla ñoom loolu dama leen ci sant bu wér wér mais jeunesse bi ci ñoom la ñu yaakaaree bañ hmm. bañ ci jeunesse bi lañ ko yaakaaree pu hmm. fu jigéen ñi demee day bañ fi mu ne commune bi ñu ne nii jigéen ñi bañ moo ëpp xale yu bañ man loolu moo ma def problème mais jigéen ñi xëy na seen intérêt rek la ñuy ndax ñu si ëpp bu dee coono maanaam ñoom a sonn moo tax ñoom ñu bëgg askan askan bi wàcc bi parce que ñoom ñoo gën sonn ci dund gi ñooy fajat jigéen a gën sonn ci dund mais góor bu dem nag ba gis loolu sa yaram bañ daw nga lang-lang ci gannaaw ma sàmba gannaaw ma dem di bàyyi si jigéen ñi nara lekkaat ci ay ati at ci ci ma xam ni doo nit. mais ma ni jeunes yi xale yu góor yi nañu ànd ak ful dignité amul prix. dignité amul amul njëg. am amul njëg pour ci kaw la. Hmm. ki nga xam ne dafa bàyyi bi ay temps des ñaari weer mu sëkk ko ñett ak xool xool. loolu yabaatu passé gu loolu man a affaire boobu daf ma metti ba tey <laughs> diggante euh, croisement ñàgg bay croisement euh, kii bay bay ci antenne ñàgg bi ci juróom ñaari at ay lamp xajul xajul won ci digënté bi han bo bàyyi na ko ba boy nañ fi accident bu amee sapeur pompier ne ci capital yépp ñoy ñëw ndax day graw day metti té effectivement loolu ndax lëndëm lëndëm lëndëm bu du ni assassin la mais bokk na ci non assistance de personne en danger parce que mom nit ñang ci danger yoonam newu ci ma nga ci lenen di wër di gar ku ñu gan ak kuy gan yéen a bokk àtte na ko nit ñi xam nañu ragal yàlla ah, euh, euh, euh, wàccoog askan wi wàccoog askan wi nañu bàyyi xel ci suñu sët yi suñu njaboot yi maanaam suñu doom yi ak suñu sët yi loolu ku mu doyul rek ku mu dawal sa yaram rek ma xam ni doo nit bu ñu topp benn ma sàmb mukk pour intérêt personnel am bu nit tamit dem ci nit mukk ngir intérêt personnel mbir mi koo yaakaar yàlla la yaakaar loolu dañ ko war a gëm ma waxaat jeunes yi dignité amul njëg hmm. dignité amul njëg hmm. amul dara lu ko mun jël jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah mbokki internet bu Lune TV ñu ngi leen di jaajëfal baax baax te ñëwoon tey ci diwaanu ñàgg doon dawal Ibrahima Akrassi eh, bokk ci eh, eh, mooy mouvement ànd defar mhm. ñu ko dalal ndax lu ñu bëggoon leer na wax dëgg yàlla bu ko defee it xam naa it balaa ñuy tëj dañuy jaajëfal bu baax baax Tons Assane Niane wax dëgg yàlla moom mi coordonné émission ba lépp mën a jàppandi waaye it dañuy wax ne ragal féete day xañ wërsëg man féete naa Abdou Aziz Sall wax dëgg yàlla ndax ku baax la koo xam ne euh, depuis lors euh, ñu xamante wax dëgg yàlla ci loolu la xam naa sax émission moo ñu ko may waaye sama ndijaay la man <laughs> wax dëgg yàlla maa ngi koy jaajëfal baax ba baax a mooy malaak caméraman ñu yi <laughs> sëñ a defee xam naa dañuy tàggatoo ak yéen jëf leen beneen incha allah rabbi jërë ngeen jëf